ko waxee woon rek eh, li ci daal si yonent yi ba ci gaa yu baax yi suñu borom kum cëral nattu la kum cëral teg la loolu moom ah, <laughs> ba baax baax baax loolu rek la loolu neex sa bopp sant ak suñu borom loolu ci naqari muñ ko ngir sa borom xam ne moo moo moo nattu la rek waaw ko daal ci yonent ba mu ba mu tal ma wila yow nan mu ko nattoo ren loo ko doom waaye lu ci mujj <laughs> xéewal gu gu ba léegi Euh, sëñ Touba euh, tooñul kenn tooñul kenn ci musta booleeg dara yàlla ne dul yàlla ak yonent bi ana lu lu ñu ko def ak fa mujj noonu loolu la tooñ benn jaamam fawul yàqul fawul juumul lu mu def rek dara defar la lu mu def rek ak defar la te mooy def mooy dindi nag kenn deful dara leçon bi moom jàppaat nañu. noonu dong la deme jërëjëf loolu la demee du leneen. waaw sant sant yàlla tey tey sax ci muñ ngir yàlla. waaw yaar yi rek. nañ tax sax ci diggante boobu rek. <laughs> tabarkalla ñu ngi lay sant nag bu baax. ñu ngi lay taxawaay bu baax di la gën a sant nag ci Ababacar mi. moom moom gone la ma ko bàyyam gar mi la. <laughs> Ah. te Mbàkke ñun mënuñu laa fay.